te jàkkaarloo wax ak mbokk yi ñu ñaanal yàlla kilifa diine yi yàlla leen yàlla bàyyi yàlla defal leen gudd fan yàlla defal leen wér yàlla sàmm leen yàlla aar leen ndax dinaay faral di wax ne am na ñi nga xamante ni seen dund bénéfice la te kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp fa tabarakallah masha allah seen dund bénéfice la te ñun ñëpp si lañ kon yàlla leen yàlla gën a dëgëral yàlla gën leen sàmm aar di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala waxtaan bi si àddina bi lenn rek la fi mën a tënk muy li nga xamante ne moom moo di boobu di coronavirus ñu ñaan yàlla fa mu am. yàlla na fa jóge ñamu dal yàlla na leen yàlla saafara waaye tam fa tabarakallahu macha allah suñu réew mi yàlla na ko yàlla gën a aar ak réewu jullit yëpp ak àdduna bi. yàlla defal ñu li nga xamante ni dugg nu fi yàlla génn ko fi ak jàmm ak salaam jeexal ko fi ndax fa tabarakallahu macha allah nekkul dara lu dul nekkul dara lu dul musiba. loolu wax ne li ñu war a def ñun nit ñun doomu aadama mooy ñu xoolaat suñu bopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko si ay xadiis yu bëree bëree bari bu ngeen deful li yàlla bëgg rek yàlla wan leen boppam si anam bu nekk nag la ñu yàlla di wane boppam te tey li àdduna bi di dund ñëpp jaaxle ñëpp tiit ku nekk di tëju fa tabaarakallaahu nga xam ne kon njàqare am na li ñu war mooy xamuñu ku def ak ku deful ku wax ak ku waxul ku jëf ak ku jëful ñu ñëpp nañu tuub dellu si borom bi subhaanahu wa taala jébbalaat ko suñu bopp yeesal suñu njëbbal si yàlla tàllal ko suñu loxo jéggalu ko sukkal ko raamal ko jooyal ko ngir yàlla subhaanahu wa taala mën ñoo jéggal ndax olof dane waxtaan na neex borom këram bu ñu demee ba yàlla subhaanahu wa taala tëj kaabaam gële ba nga xam ne ña koy tawaaf léegi dañuy seen kaaba gi dootuñ ko laal ma ne kon yàlla tere nañu këram kon olof nee na waxtaan na neex borom këram bu ñu yàlla teree këram rek mooy que ne li ñuy waxtaane si kër gi neexu ko li muy dégg si kër gi neexu ko li mu gis si kër gi neexu ko moo tax mu génn ñu si biti kon nañu xoolaat suñu taxawaay xoolaat suñu diggante ak suñu borom xoolaat suñu diggante suñu biir di nëbbalante ay ayib di suturaalante di waxalante lu baax naay wax na réew mi El Hadj Ngay ma koy nuyu bu RFM directeur daf may faral di wax ne oustaz ma ne ko naam El Hadj mu ne ma réew lu baax moo fi ëpp. waaye lu bon rek la ñuy fësal nañu génn lu baax li di ko waxalante lépp luy sofaan lépp lu jaaduwul lépp lu rafetul ñu gas ko ba mu xóot ñu suul ko te jubboo suñu biir waxalante lu baax yéenante jàmm yéenante lu baax te yàlla rek a tax ndax jamono ji fi mu nekk nii jaxasoo na lool te lépp si ñun lay dellu yàlla waxoon na si alquran zahara alfasadu fi lbarri walbahr ñu ne ko si naka mu ne bi maa kasabat aydi naas bi maa kasabat aydi naas lu yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun si suratu ruum sadaqallahu alazim yàlla nee na yàqute fës na tasaaroo na law na si àdduna bi si géej gi ak si jéeri gi ñu ne ko yàlla loolu lu ko waral lu ko indi lu ko sooke mu ne jëfi doomu aadama kon lu fi yàqu ñan ñun la yàlla nee na lu baax rek si man lay jóge waaye lu fi yàqu defar naa ba mu baax comme ni ñu koy waxee ngeen ñëw di yàq rek di yàq rek di yàq rek yàlla nag léeg-léeg jamono dana ñëw ma am lu ma leen mosol tuuti ngir ngeen xam ne yàlla mi fi nekkoon démb moo fi nekk tey te moo fi nekk ëllëg ba ilaa abadil abad loolu li ñu siy déggee mooy yàlla mu ngi ñuy wan boppam yàlla mu ngi ñuy wan ne bégul yàlla mu ngi ñuy wan ne kontaanul yàlla mu ngi ñuy wan am na la nga xamante ni ñu ngi koy def te neexu ko kon nañ ko tuubal nañ ko jéggalu nañ ko sukkal te raamal ko te delloo ko li mu moom moom borom bi subhanahu wa taala bokkaale yàlla bi bari na mooy yàlla gi bari na tooñante bi bari na wax na ko sudul noonu bari na jëf na ko sudul noonu itam bari na fa tabaarakallaahu kon loolu message la woon bu ñu doon lancé ñun ñëpp nañ si bàyyi xel di ñaanal yàlla ki nga xam ne moo jiite réew mi fa tabaarakallaahu ndax man damay faral di wax ne ku jiite réew kenn gënu la bëgg réew moomu ndax boo sañoon lépp loo fay def lu baax lay doon lépp loo fay def boo demee itam ñu koy ko mu nekk njariñ ñëkk yiw nekk la nga xamante ni lu jëmale réew moomu kanam la ku si nekk da bëgg di yokk yàlla def mu am si ayu le président Macky Sall yàlla na ko si yàlla subhanahu wa taala defal ndam ndax du amee ndam ñun rek ñu am ndam ak ku mel ni son ministre de la santé di Abdoulaye Diouf saar di maire Yoff moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko si ndam ndax mooy coordonné lépp la nga xamante ni dafa jëm si wàllu feebar boobu buñ si dugal politique feebar bi du lu ñuy politiquer ñun ñëpp nañu bokk ndey bokk baay te ñaan yàlla mu génne ñu ko ci feebar bi te may ñu wér waaye ay ministre bi na fi jóge na dem na kii naan de yooyu amul solo waxi politique yooyu nañ ko teg fële ñu xam ne ñun dañu am benn adversaire ba nga xamante ni mu ngi suñu kanam te dañu war a bëre ak moom ba daan ko ni ñuy bëree ak moom rek mooy tàllal suñuy loxo ñii mën a wax allahumma wax ñii mën a wax rabbana wax ñii mën ñaan beneen ñaan ñaan waaye boole ko ak sabablu li ñu waa kër docteur di sant ñu koy def li ñu waa kër docteur di sant ñu koy def ndax yàlla moo waxoon ne fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun laaj leen ñii seen xam-xam màcc si domaine bi ngeen soxla bu jamono ñëwee lañ leen sa wax rek jëfe leen ko kon loolu moo nekkoon message bi incha allah bu ñu doon lancé rek fa tabarakallahu yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te yàlla jéggal ñu suñu ay bàkkaar yàlla ñu ngi lay tuubal ñu ngi lay sukkal ñu ngi lay raamal ñu ngi lay tàllal suñu ay loxo feebar bi nga jële ko fi ak bépp nattu ba nga xamante ni day diis si doomu aadama yëpp yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def euh, képp ku si ñun rek na wax loolu ne yàlla maa ngi lay jéggalu di la tuubal di la sukkal di la raamal amaana ki tax yàlla mer wala li tax yàlla mer kenn xamul fu mu nekk wala kenn xamul fu mu féete kon bu ñu defee lool rek yàlla mën nañu ko defal ndax amuñu ko dul yow yow la ñu yaakaar àdduna ak àllaaxira kon suñuy mbir yëpp mu ngi si sa loxo defal ñu ko si ni nga xamante ni ni la gëne ñu nekkaat si jàmm ak salaam yàlla ñu ko yàlla defal te nag waxtaan bi dañ si ànd ak euh, li nga xamante ni moom la ñuy waajal di la nuit de la fayda muy laylatul fayda nga xamante ni incha allah ëllëg lañ ko fas yéenee amal fële ca nga xamante ni moom moo di grand théâtre ak njabootu suñu sëriñ suñu maam suñu lépp Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass al Kawlaxi radiyallahu taala anhu wa arda bihi am naa bihi amin fa tabarakallahu ma sha allah mu nekk guddi ga nga xamante ni wax dëgg yàlla saa yu ñëwee rek xel yëpp dañuy dem si Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu gis nga bu ñu defee ñi mag ñi rek lépp sotti ndax moom waxoon na ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam fu mu teg tànkam rek man foofu laay teg sama bos wa ida saara xayru naasi surtout waraahu kon loolu dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la ñun ñëpp ñu war koo ñu war koo bàyyi xel macha allah donc si waxtaan boobu di laylatul fayda la nuit de la fayda nga xam ne ëllëg lay am samedi 14 mars à partir de 18h fële ca Grand Théâtre guddik tudd yàlla la guddik ñaan la guddik toroxlu la itam ndax loolu rek la ñu am loolu rek la ñu sañ a def loolu itam moom la ñu yàlla subhaanahu wa taala digal si jamono ya nga xamante ni jamono yi tiis lay lay lay doon kon dañuy ànd si waxtaan bi ak alhaaj oustaz Omar ñaan kenn dootu ko présenté macha allah moom sox moo waroon ubbi jataay bi waaye message lañ doon lancé rek ak soxna Khady sekk du ma ne Khady Diaw ndax damay jël sant bi tey njaween bi moom dañ koy tege ne la ndax ba sekk sekkeen yi pare macha allah suñu kàlla sañ nañ ko sañ nañ ko tooñ kon haaj oustaz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 فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل توكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين حسبك ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل صدق الله العلي العظيم ما شاء الله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسولنا بالمصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين maa ngi dégg petit naan xasbuk xam nga moom ñoo doon ànd si concours récital Coran bu Sénico bi. xasbuk dafa jaare dégg arab dégg na arab petit maa ngi koy nuyu suñu caméraman bu baax bi. dëgg la fa tabarakallah Haaj Oustaz Omar. Mm-hmm. mu mel ni dégg nga message bi ñu lancé te xam naa ne heure bi dafa xat mi ngi dem mhm. euh, tur bi lu ko waral la nuit di fayda de la fayda waaw nuit de la fayda mooy mhm. guddik faydu mhm. ak luy faydu faydu mooy wooteeb Cheikh Ibrahim radiyallahu taala bi nga xam ne Cheikh Tidiane moo ko diggee woon ci tariqa bi wax ne am na faydu buy ñëw wan naasu fi gaayati ma yakununa min maa yakuuna alayhi min addiqi wa shidda mm-hmm. am na faydu buy ñëw boo xam ne bu ñëwee dina fekk nit ñi ci extrême crise mm-hmm. Baye Niass nag ñëw feeñ woote faydu à partir fin vingt mm-hmm. neuf mille nga xam ne la crise économique des années trente mooy la la pire crise bi nga xam ne moom la mond bi ñëpp d'accord nañ ne boobu mooy pire crise bi nga xam ne àdduna bi amoon na ko. ci jamono yooyu ah, la crise économique des années 30. Mhm. jamono jooj ci la bàyyi woote faydu bi. radiyallahu taala anhu. fekk tamit nag xol yi crise nañ ruu yi crise nañ ci yàlla. Mhm. soxla nañ jëmm joo xam ne dana ñëw yóbbu ñëpp ci yàlla. tuubal ay nit ñu bëri comme ni ko Cheikh Tidiane waxee woon. Mhm. ne faydoo ngi ñëw. ci sama tariqa bi bu ñëwee nit ñi dañ dugg ci sama tariqa bi ay mbooloo ak i mbooloo mhm. Baay Ñas def lu mel noonu woote ne mooy boroom mhm. waaye feeñal ko mhm. wane li Cheikh Tidiane waxoon mooy lan wër na àdduna bi dugal ay mbooloo ay millions ci millions ci tariqa tijaan mhm. waaye yemu fa mu mhm. suub leen tarbiya leen ba ñoom ñëpp ñu yegg ci yàlla mhm. xam seen borom loolu moom mooy faydu loolu moo tax bàñes waxoon ne ah, alhamdulilah laysa sirri aaqiran wa asgaru atbaai bariun min ashirki macha allah maa ngi sant yàlla sama mbóot jërmalul ki gën a ndaw ci sama taalibe yi dañ na ci bokkaale macha allah mu mel ni fa tabarakallahu macha allah ëllëg lay doon fële ca grand théâtre à partir de 18 heures mu mel nii dafa nekk la nga xamante ni dama ne li ma gis dafa spécial lu tax muy spécial ndax lii ma gis ci ay jàngkat. dina fa nekk suba incha allah nekk na la nga xamante ni wax fa dëgg yàlla bu dee zikrullahi rek moom moo ñu ñor bu subaa ku fa ñëw sa xol moom gëm naa ne dana tooy. Mhm. donte la benn zarra. lu ne ne mhm. xabat zarra lu ñu toll. Mhm. moo nekk ci sa xol si si si ngëm yàlla. lu waral dajale eh, eh, zaakirina haulaay kulluhum waaw fii bu xawaahida maanaam dajale eh, yëpp si benn guddi si benn bërëb. waaw dañoo nekk ci jamono joo xam ne. Mhm. te ñëpp ay jeunes aussi. dañoo nekk ci jamono joo xam ne vraiment. Mhm. jamonoy panique la. Mhm. lu tax parce que àdduna bi mu toll nii jaxasoo na trop. virus bi ñuy wax coronavirus jaxase na àdduna bi lool mhm. lool lool lool mhm. lii dafa ñëw ci moment bi mu ñëwoon donte c'est pas la première fois ñu koy def mhm. defoon nañ ko daaw waaye dafa ñëwaat ci moment am parce que li nga xam ne mooy tax nit ñi am sécurité seen xool yi dal yàlla mu ne mooy zikkar alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub la wax bi mooy yàlla wax na ci yonent bi wax na ci xadis mu ne aljanna amul dara luñ fay rëccu hmm. aljanna dafa neex ba boo fa duggee dootoo réccu li ngay réccu kay muy yéex gi fi yéex a dugg waaye yonent bi mu ne am na réccu mhm. lañ fay réccu mooy ba nga nekkee àdduna mhm. toogoon benn heure boo xam ne nekkoo woon ci di zikkar loolu lañ ci réccu laysa yataxassaru ahlul jannati mhm. illaa ala saatin marrat bihim lam yadkurullaha fi azza wa jalla kon nag ki xalaat xalaat bi muy Cheikh Ibrahim Ndoye ñu koy remercier di ko féliciter dajale zikarkat yi kooku amel nañ ko njugal parce que dajale zikarkat yu mel nii yu toll nii ay ténor nga dajale leen ci grand théâtre pour lan bu ëllëgee ñu bañ a réccu heure yi ñu doon toog ni ko bañ a zikar kooku amel nañ ko njukkal vraiment macha allah moom mooy affaire bi mhm. wax ji daal mooy mhm. ñu ngi dem grand théâtre mhm. ah, pour zikar xol yi dal fàttaliku Cheikh Ibrahim te itam nag bàññis waxoon na ne wa inna xutuuti lil anaami saadatun fa ishqa mm-hmm. yawman raani wa sama mbind mi sama mbind yi texe la ñeel xeet bi texaat yi benn bés ku ma gis mbaa ko gis sama bind mm-hmm. Baye Niass boo demee juma mbir na Baye chaque ajjuma dañuy teg suratul kahfi mm-hmm. ci juma ji parce que yonent bi moo ne woon ku ko jàng bésu ajjuma sa yaram araam na safara macha allah bàyyi mu ne comme nag ñëpp mokkaluñ ko ma teg ko ci jumaa ñu koy dégg ku ko dégg mën a texe alhamdulilah ñun tamit nag comme bind bàyyi ñëpp mokkaluñ ko incha allah bu ñu ñëwee grand théâtre ñu zigar ko fa mu neex dugg ci xol yi mhm. la bàññe si waxoon ñu dëggal ko mhm. ci ci nit ñi ba nga xam ne képp ku dégg bindu Cheikh Ibrahim waxu Cheikh Ibrahim dootoo texaat yi ba mukk allah Cheikh euh, Oustaz Omar am na solo kaddu yaa ngi noonu kon fa tabarakallahu macha allah ëllëg lay doon fële ca grand théâtre dafa am ko tudd léegi muy Cheikh Ibrahim Ndoye mm-hmm. di jeune waaye di jàmbaar si yoon wi ak si faydu bi mm-hmm. ndax dinaay faral di wax ne eh, am na ndaw ña nga xamante ni yàlla suñu borom subhanahu wa moo leen di baaxal mm-hmm. ndax am na la nga xam ne yàlla mooy xool ku ko neex mu jël responsabilité boobu teg ko si sa ndodd kon Cheikh Ibrahim bu jëlee guddi gu mel nii jël ñu mel nii dajale leen ngir tudd yàlla ak fàttaliku ku mel ne Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu kon jeunes yu bëri war nañ mën a xool si si moom. Mhm. loolu day nekk la nga xamante ni lu ama ama am solo la macha allah euh, soxna Khady ma wax jaww la sekk. <laughs> macha allah mu mel ni dégg nga oustaz euh, Omar li mu yëkkati si ay kàddu mu nekk kàddu ya nga xamante ni lu am solo la nga gis tamit si guddi gi dinañ si gis ay zakiraat maanaam ay tuddukat yàlla ak tàggkatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ña nga xamante ni ay jigéen lañ te loolu nekk la nga xamante ni lu ama ama am solo la yow en tant que jigéen euh, mbir mi bi nga ko yëgee bay suñu borom subhanahu wa taala boole la si lan nga si yëg. ak nan nga koy waajee ak lan ngay wax itam sa mbokku jigéen yi nga xamante nii bu ñu jubay jagal jubal rek lépp baax soxna Khady Diaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad ñëpp di ziar di suñu xalifa Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass mm-hmm. ak suñu imaam imaam Cheikh imaam ak suñu euh, xalifa fii si Dakar Mouhamadou Amine Babalamin di nuyu mboolem njabootu baay mboolem xaddam baa ak seex euh, sang Ndiaye mi nga xamante ni tey ay taalibe ñoom ñoo organisé bi mu euh, di santaat yàlla bu baax euh, di wax ne bis la bi nga xamante ni guddi tuddi yàlla la muy nuyu de la fayda di ci woo mboolem taalibe Cheikh Ibrahima ak mboolemu jullit naa sawar si laaj boobu nga ma laaj muy guddi zikar boobu si wàllum jigéen ñi mm-hmm. ndaxte jamono yàqu na yàqu ba nga xamante ni. Euh, bu ñu yàlla dimbalee rek xër ñu ci lii rek loolu dañuy dellu santaat yàlla bi. Mm-hmm. te santaat yàlla bi mooy lii ni ñuy organiser muy nuit de la fayda. Mm-hmm. ndaw ñi fas yéene faa dajewoo. muy mm-hmm. tuttukatu yàlla yu góor yi. ak jigéen ñi comme ni may wax sama morom jigéen ñi rek. ñu bàyyi waxoon ci bayti bi mhm. yaay yoxel naatu zahim na ina ilaa nayla wala ama bi daani fala mhm. yéen sama jigéen ñi na ngeen ñu raj góor ñi ci maqaama yàlla yi kawe mhm. kon lu mel ni buñ ko wootee rek yaakaar naa ne jigéen ñi dañ faa war a fees dell ñëw raj rajloo góor ñi ci maqaama yàlla yi kawe lu mel ni tudd yàlla. Mhm. te mun naa xam ne ñu si mois de mars. le 14 mhm. mars. Mhm. le 8 mars moo jàll maanaam ñu si weeru jigéen ñi. kon weer bi weeru jigéen ñi la jigéen ñi ñoo ko moom. mu leen ci woo ñoom ñëpp. incha allah ñu ñëw teew ci guddi bii nii te xam ne uh, weer bi weeru jigéen ñi la bu leen benn góor yóbbul. Uh, ci guddi gii nii. incha allah rabbi macha allah soxna Xadi kaddu yi nekk kaddu yoo xamante ni lu am solo la mu mel ni kon bu ñu déggee sa kàddu bu baax woo jigéen ñi ngir ñu ñëw tënku si li nga xamante ni moom la si Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu jàngale mu nekk yoon ba nga xamante ni ku si jaar na mu la ko sante ak na mu la ko digale amul sa benn morom booy xool di ko di ko di ko ñee naay faral di wax ne ku moom li Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ku mu yar nga jaar fa mu la jaarloo ku la seen buy ngay dox du laaj foo bokk da koy xam automatiquement ndax jàngaleem koo xamante ni macha allah suñuy nopp 18 ans da taalif téere muy ruuxul adab nga xamante ni lépp la nga xamante ni yar sa bakkan ak ni ngay dundee ak ni ngay taxawee si société ak sa diine yow ba ngay nekk ndaw nga ko jàngale kon loolu nekkul woon la nga xamante ni dafa yemoon rek si wax déedéet mais dafa yemoon itam ci ci ci jëf ndax alquran dafa wax ne waqul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen la wax jëf leen waxul rek wax leen yem si te dañ ne euh, nu mu tuddati les paroles s'envolent mais les écritures restent maa kutiba xarra wa maa xufida farra kon loolu daf ko fi bàyyi mu nekk la nga xamante ni lu ama ama am ama am solo la euh, Cheikh Oustaz Omar nga kàddu yi soxna Xadi Jaw yëkkati fa tabarakallahu ma sha allah mu nekk guddi ga nga xamante ni ñu ngi si woo ñëpp léegi tey bu ñu la doon mënoon boo ñu mënoon wax particularité guddi gi maanaam xasiya bi lan lay doon waaw particularité bi mooy dajale gi ñu dajale yaakaar naa kat yoo xam ne wuute nañ ci ay mm-hmm. voix mm-hmm. ci ay timbre vocaux mm-hmm. waaye aussi ci ay airu zikar yoo xam ne benn bokkul ak sa morom tey Omar Ñaan bokkul ak Khady Diaw ni muy zikare ak Aïda Faye am na différence Bachir ñëw ak ay airam te kenn ku nekk boo zikaree sa morom dana yëg ci yow loo xam ne mhm. moom ci boppam bu ko doon defal boppam manu ko mhm. kon yaakaar naa loolu rek war na tax mhm. foofu fees dell bay tuuru pour man particularité bi yëpp daal loolu la mooy ay air yu wuute ñoo fay feeñ ay làmmiñ yu wuute ay baat yu wuute waaye aussi ay xeetu zikar yoo xam ne kenn mosu koo dégg. macha allah dana fa allah. macha allah kon mu ngi noonu incha allahu taala le 14 lay doon di ëllëg mu nekk bés ba nga xamante ni euh, naka ñëpp teewee ndax euh, naka na fa nga xamante ni bokkoon na si yoon bi sallallahu alayhi lu mu waxoon mu ne. ay nit amuñu fenn fu ñuy toog daja fa du tudd yàlla lu dul malaaka yi dañuy ñëw toogandoo fa ak mm. ñoom bu ñuy paree dellu si yàlla yàlla ne leen fu ngeen ne woon ñu ne ko ñun day si exemple ni woon grand théâtre lu fa amoon ñu ne ko dañ la fa doon tudd di la kañ di la bàkk waaye itam di la ñaan ñu ne mu ne leen ñu fa nekkoon te yàlla moo leen gën a xam li mu leen di laaj ñu ne ko diw mi ngi fa woon diw mi ngi fa woon diw yàlla ne leen lu ñu bëgg ñu ne ko sa njéggal ak sa yërmande ak sutura àdduna ak àllaaxira yàlla ne comme loolu ñoom jaral na leen ñu bàyyi seen lépp dem dajaloo si bërëb boobu yéen ngeen fekk ko seede ko kon jéggal naa leen yal na ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala boole si jataay yooyu donc lépp la nga xamante ni wàllum information yi la ko si bëgg xam leneen ak yokkute eh, da nga si woote 78 291 99 51 78 291 99 51 nga xamante ni ànd si ay ak ay partenaires yu bari bokk na si partenaire di télévision Futur Média kon jaadu na fa tabarakallahu macha allah bés bi ñu gën ko fësal. Mhm. ndax ku mel ni suñu sœur Mariane Siva ku ko xamoon yaa ngi ko xam si njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu mu si nekkoon jàmbaar nga xam ne matul weer. bi ñu koy fàttal ko mu def at si biir suuf ñu koy ñaanal yàlla ak alaaji mbay njool ak ñi nekk biir suuf ñëpp ay jullit yàlla suñu borom subhanahu wa taala jéggal leen yëral leen xaare leen aljana suñu borom sëñ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala def mu mel ni bokk na ci zikarkat yañ fa ya fay teew ku mel ni ay dafay euh, oustaz Omar Ñaan mu ngi nii toog Baye Mor Touré Moustapha Sarr Adja Khady Diaw Seck ba tey <laughs> Madiara Ñaan Adama Ba Axis Touré Hafiz Cheikh Bachir Cissé Thierno Ba Hadi Touré Baba Kamal Cheikh Tidiane Boiro Baba Gadji Pa Dramé Sayid Sall Cheikh Mbow Ahmad Thiam ambulant Cheikh Baye Bitey Ahmad Thiam mooy kii di way di wër di jaay <laughs> allahu akbar kooku moom sama fans la kooku moom sama fans la parce que nee naa ko xaw ma kuy lambale waaye yow doo lambale <laughs> waaw yow moom doo lambale ndax fa tabarakallahu macha allah hmm. ak Cheikh Baye bi tey Alioune Mbodj Mariama Loum Alelo Isaba Astou fay ndey wilaan Babacar fay kon mu ngi noonu incha allah ñoom ñëpp bu sooba yàlla ëllëg dañu teew fa la nga xamante moom moo di si grand théâtre di la nuit de fayda te fas yéene si ànd ak suñu xarit bële fa tabarakallahu du Cheikh Ibrahim Ndoy wax naa ko sànq si taxawaayam bu am solo xam naa waxtu bi léegi mu jeex ndax oustaz Abdou Karim Ba mu ngi taxaw nee naa ku si bëgg am information boo wootee rek fa tabarakallahu macha allah si soixante dix huit deux cent 91 99 50 51 mu mel ni incha allah si ñaar minutes yi des rek dañ si ànd ak suñu xarit ba nga xam moom moo di Bachir Cissé macha allah moom itam mu ñëw yëkkati si ay quelques kàddu rek macha allah di ziar bu baax suñu ma yaay Adja Diarra Seck moom mu ngi fële ca Amérique ak njabootam ñoom uli ñoom ñëpp fa tabarakallahu fàttew ñu suñu yaay Adja Roqayatu Cissé fële ca Toulouse Adja Roqaye Jàbba Cissé moom itam fàttew ñu ko ziar bu baax suñu yaay Adja Astou Fall bu groupe Sopp bi Adja Astou Fall ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam di ko ñaanal yàlla groupe Sopp bi sama groupe la ñu ngi ñëw léegi defal leen yóbbalu aljuma bi fa tabarakallahu ma sha allah kon nga xamante nii loolu ay mbir la yoo xam ne yu ama am solo la lii nag euh, bu amee dañ si am koo xam ne faw ñu bàyyi ko xel muy suñu goro di ki nga xamante ni moom moo di Ousmane fay Ousmane ñu ngi koy nuyu bu baax depuis eh, fële ca kër Ayib la nekk waaye waa Jas la Ousmane Faye ñu ngi koy nuyu way juróom Haj Ibrahima Faye Adja Assou Mbeng bu Jas ñu ngi koy nuyu faatu suwaare wala Fatou Faye Fatou Souare faatu fay ñaar yëpp baax na ak suñu xarit Cheikh Abdourahmane Ndaw kon Haj Bachir si ñaari minute rek yaa ngi nii door dégg nga waxtaan wi ni mu tëddee fa tabarakallahu yan kàddu nga si yokk rek alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sallallahu alayhi ñu ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ci turam ak jëmmam di ndokkeel ñëpp tamit di am kontaan trop ci émission bi di wax ne rek luñ ci lancé mooy di woo ndaw ñëpp mhm. Oustaz Omar Niane woote na Zeyda Khadija woote na mhm. kon ñun tamit buñ nekkee ndaw ñëw mhm. dañuy woo ndaw ñi parce que ndaw mooy ki nga xamante ni moo war a yor réew mi ëllëg mhm. te bu jëlee ndawam def ko ci lu dul yàlla rek pertement la koy jural mhm. donc képp koo xam ne ndaw nga yaa xam ngay góor ngay jigéen doonte mhm. ndaw nga rek ñu ngi lay woo ci bés boobu ne la bu ci benn mag ëppale bu la ci benn jigéen ëppale ndax euh, bàñes daf wax ne njariñu bépp réew mhm. mu ci ndaw réew mi mhm. kon ndaw réew mi ñu ngi leen woo ci bés bi muy nuit de la fayda mhm. ñu ñëw tudd fa yàlla màggal li nga xamante ni mooy baat bu tedd bi muy kalimatul xaq nga xamante ni yent bi wax na lépp lu mu tudd ak yent yi passé baat boobu mooy baat bi nga xamante ni moom moo ci gën te wax na ne fu ñuy tuddee yàlla képp ku fa toog Mm-hmm. yaa ngi ci toolu dëru aljana yi kon na ñëpp ñëw grand théâtre ñu dugg aljana ngir ñëpp mën a texe amiin yàlla ñu ko yàlla defal kon loolu rek lañ ci sànni di woo ndaw yëpp encore une fois di nuyu xalif bi di nuyu imaamul akbar di nuyu suñu sëriñ Mawlana Sang Baraamu Njaay te wax ne ndaw yi daal na ñëpp ñëw insha allah Cheikh euh, Cheikh Omar nga baal ma rek ma sànni ñaari kii rek balaa ñuy continuer waxtaan bi pour mën a tàggoo di yëgle rek tàkkusaanu sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu le 21 mars lay am fële sa Géejawaay si côté tournal Euh, Serigne Assane Fall waaw di si ànd ak Serigne Babacar Sy Mansour xarit général des Tidiane Serigne Jamil si nekk fii si rajo bi si suñu Serigne fa tabarakallahu yóbbanteem la ñu koy jàllale incha allah kon euh, takkusaanu Serigne Babacar Sy lay doon incha allah samedi 21 mars fa tabarakallahu tournal Serigne asan Fall à partir de 16h fële sa géejawaay suñu xarit tamit maam yelli laam cuun président ACP amical du cinquième pilier moom tamit fa tabarakallahu mooy organiser première euh, édition takkusaan Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam samedi 21 mars lay doon moom itam incha allah fële ca Médina rue 39 angle 22 en face école Jean de la Fontaine Médina 39. angle 22 fële ca Medina lay doon incha allah samedi 21 mars maam yelli suñu xarit la suñu seexu màkkal moom itam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko gudd fan ak wér loolu tamit dina am si teewaayu Serigne Babacar Kane Khalif Abdou Hamid Kane ca Kaolack Serigne maam Alfa Sy ca Tiwaawan ak Chérif Bahayda dara Touraat ak imam Mouhamad Lamine Sarr imam ratib ca HLM ak ki nga xam ne moo di Serigne Thierno Diop di chef religieux ca Thiès fa tabarakallahu maam yelli ñu ngi koy nuyu bu baax kon samedi 21 mars lay doon moom itam fële ca Médina kon yóbbante yooyu démb nag comme ñu koy waxee rek réew mi ñëpp ñu ñaan suñu waa kër maam maw eh, ki nga xam ne moo di Seydina Imaam Allahi Nuuhdil Muntadar amaloon nañ ñaan gu am solo démb fële ca jàmmalaay ngir ñaan si feebar bi ak musiba yeeg balaa balaa yi am si réew mi suñu borom subhaanahu wa taala eh, teggi ko mu amoon si teewaayu sang yi Serigne Mouhamadul Amin Laay ak ay doomam ak ay rakkam lépp nag amoon si ndigalu Chérif Abdoulahi Thiaw Laay nga xam ne moom moo di xalif général des Layeen nga xam ne appel bi itam le 25 le 26 mars la incha allahu taala di wax na rek nañu gën a bàyyi xel eh, ci li nga xam ne moom la doon doon waxtaane Cheikh Omar ñu jox la kàddu gi nga tàggoo incha allah. waaw tàggatoo bi lenn rek la mooy di invité waat ñëpp. Mhm. di wax ne képp ku bëgg a réserver billet. 78 mhm. la 291 99 51. VIP 10 000 la simple 5000. Euh, di wax ne ñu ngi nuyu suñu sëriñ Maolana Sang Barham Ndiaye di nuyu waa daayira filiyaanu Siddiqin yëpp. Hmm. di nuyu waa na Baye di nuyu suñu xalifa suñu imaam ak suñu représentant xalif fii ci Dakar muy Mouhamadul Amin Ibrahim Niass. Hmm. di wax na dañuy bàyyi Bachir mu yëkkati tuuti. Mm. zikar. Mm. rek incha allah xam naa ñu tëjee ko. Mm. xam naa Bachir da ngay yëkk da ngay bàyyi man nuyu tàggoo. comme ça nga zikar ñu yëkkatiwaale ko jotaay bi. dégg nga incha allah ndax euh, xeerul umuri xawaatimuha <laughs> kon jotaay bi nañ ko tëjee zikar rek mu gën a ala dawme mm-hmm. ziar bu baax waa Tourel Travel fa tabarakallahu ma sha <laughs> allah suñu mbokk yooyu. madame Ñaa oustaz Lamine Diouf fàttewuñu ko Mariama ak Soxna Aysatu Ñaa itam fàttewuñu ko wax naa ko sànq waa Jas fàttewu fàttewuñu leen fa tabarakallahu macha allah loolu nekkoon ay yóbbante yi nga xamante ni mënul woon mënul woon ñàkk kon information ba mu ngi noonu ëllëg lay doon ca grand théâtre la nuit de la fayda na ñu yàlla may fekkee ak tal info line 78 291 99 51 ak Cheikh Ibrahima Ndoye yaakaar naa loolu moo fi nekkoon ay yóbbante li may tëjee rek mooy nañu bàyyi di def ay désinformation par rapport ak feebar bii du coronavirus di wax naan ñi ñi ñi gëmul yàlla la ko yàlla di teg ak déedéet yàlla ba muy wax dane wattaqu na laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqaab yàlla dafa waxoon ne moytandiku leen fitna ba nga xamante ni conséquence yi buy wàcc du yem saña ko defoon rek waaye day law ba si ñëpp waaye toog naan ñii di tooñ yàlla ak ñii gëmul yàlla déedéet yàlla buy tegee feebar amul ma sàmba amul ma dem ba ku ko neex la koy teg Iran ña fa nekk du ñu ay jullit wala ay jullit lañ Arabie Saoudite démb amaat nañ 16 xaw ma 17 cas barke démb amoon nañ 24 24 cas te ay jullit a fa nekk Kaaba gi fa la nekk Arabie Saoudite fa la yonent bi sallallahu alayhi ma sallam tëdd précisément Madinatul Munawwara te Madina am nañu ko fa am Makka am nañu ko fa am comme dañuy bàyyi di wax ne yàlla daf koy teg ñi ko gëmul yàlla nee ne bu may wàccee samay euh, euh, euh, ay duma si waxin ngeen jéggal ma si kàddu si ñëpp laa koy wàccee dama ne nañu gën góor góorgóorlu suñu diggante ak suñu borom tey waxalante lu baax tey bëlante ay ayib bu ñu bëggee yàlla jéggal ñu parce que yàlla bu ñu privé néegam bële mooy que ne am na lu ñu ko wax wala lu ñu def te neexu ko te wax naa ko sànq waxtaan na neex borom këram Iran tëj nañ seen ay juma kenn julleetul juma màkka gis nga tey julli ñu juma sa kaaba ku si nekk am na noo def ba julli juma am mais nañ ko doon defe defe ñu noonu feneen noonu France noonu feneen noonu te yëf yi mu ngi gën di law mu ngi gën a jaaxal adduna kon nañu gën a takkat laxasaay gën a góorgóorlu tuub dellu suñu borom tàllal ko suñu loxo li ñu waa kër docteur di wax ñu def ko mbir mi du mbirum politique du mbirum parti du mbirum xiiro du mbirum ŋaayoo dafa nekk la nga xamante ni àdduna bi yëpp la concerné tey réew mu nekk nag yaay jël sa ay matukaay di gërëm bu baax Serigne Cheikh Mountakha ibnu Mouhamad Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikhul Khadim radiallahu anhu xalif général des Mourides si geste bi nga xamante ni def na ko yëkkati li nga xamante ni moom la joxe ngir ñu dimbala koo ko yokk ko si li ñu yor ngir feebar bi gën a mën a nekk la nga xamante ni lu fiy gaaw jóge la joxe na exemple bi waaye tam ku décortiquer kàddu gi xam ne am na la nga xamante ni fa tabarakallahu ñu nuñ ko olof nag nee na junju doy na boroom xel kon euh, sëñ Mountakha xalif général des Mourides yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ak mboolem kilifa diini yi nekk ci réew mi yépp nañu topp seen ay waaw ndax ñoom lislaam la ñu fi nekk te lislaam lu mu wax loolu la ñu wax lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñoom loolu la ñu wax lu alquranul wax loolu la ñu wax mag ñooñu loolu lañ leen mas a xamee kon fa tabarakallahu ma sha allah bu ñu demee ba yëkkati kàddu jaaral ko ci euh, porte parole ki nga xam ne moom moo di Serigne Bassirou Abdoul Qadir suñu xarit suñu soppee boobu ma sha allah kon loolu ñun ñëpp dañ si war a jànge waaye itam bàyyi si xel nga xam ne kon woote na ne waxtu takku jot na waxtu doon benn jot na waxtu def benn say jot na waxtu solidarité itam jot na kon loolu moo nekkoon kaddu yi buñ ko politiqué kon président ak ministre am Abdoulaye Diouf Sarr yàlla na leen si yàlla subhanahu wa taala defal ndam kuy politique nag nga dem fële nga politique ñun politique ñu dañu bëgg rek lii ñu yàlla teg si nattu ak musiba ak balaa yàlla teggal nu teggul ñu ko suñu borom sañ na ko mën na ko yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala def euh, njiit nag yàlla moo koy def nit mu mel ni oustaz Abdou Karim Ba yegg se na te day ñëw léegi ak seen émission bi nga xam ne ñëpp a ngi koy xaar di tafsirul ah axlaam di l'interprétation des rêves wala firi gént mu nekk borom xam-xam di ku baax di suñu kilifa di suñu lépp oustaz Abdou ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ñaanal ko waa kër gi ñi fi daan seen doole yëpp si groupe Futur Média ñaanal ko président Youssou Ndour ak njabootam bàyyiwu ñu kenn kenn kenn ak ñi nekk si réew mi yëpp fa tabarakallahu ziar bu baax al imaamul akbar imam Mouhamadou Ndoye Bouga di imam ratib bu yoof fàttewu ñu itam Chérif Abdoulahi Thiaw Laay nga xam ne fa tabarakallahu ak njabootam gépp Serigne Mouhamadul Amin Laay Serigne Diaw ñu ko suñu soppee Serigne Mouhamad Tahir Saïdou Sarr Tahiru ñu ngi koy nuyu ak soxnaam Adja Merem Sarr ak waa Tourel Travel yëpp Lamine nuyoo baa ngi noonu euh, Cheikh Bachir euh, ñu gën a ñaanal rek. Cheikh Ibrahim Ndoye yàlla gën ko dëgëral ndax bu ndaw ñëpp defoon ni ñoom lu bari mën na soppeeku te gëm naa ne sax dana soppeeku si réew mi incha allah di leen jox dig daje rek aljuma bii di ñëw si beneen émission gërëm techniciens yi waa régie Vieux Diouf Babacar am fàttewuñu ko ak ñoom Petit ak ñoom Cheikh ñëpp ñëpp fàttewuñu leen fa tabarakallahu ma sha allah ñëpp fàttewuñu leen ak Jamil su ah Aziz waaw Aziz ak Jamil ñoom ñëpp fàttewuñu leen madame Guissé gisuma ko si réseau bi je pense que mu ngi fa ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar kon euh, euh, Cheikh Bassir nga yëkkati kàddu rek kàddu yu zik kàddu yu ñaan ñu tëjee ko jataay bi ba aljuma bi di ñëw seen xarit seen soppe oustaz Hassan Seck salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ya allah allah allah allah allah ya allah allah allah allah allah. يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله ومن يحبني ومن يراني في جنة القلد بلا بهتان إذ أناني قلي فتتجاني موحبة من أ ما دل عدناني الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله الله الله الله الله الله لا إله